billahi min alsheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ah, ñu dellu sant yàlla bu baax a baax a baax bim ñu mayee fekkeek di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, di ñaan ah, li nga xam ni moom la ñuy def nii niñ ci duggee ci bismillahi rahmaani rahim yàlla nañ ci génn ci alhamdulilah rabbil alamin waaw di nuyu ñi fi teew ñëpp nag di ko jiital ci ki nga xam ni moo ñu jox keppaar gi ñu koy defee muy monsieur Banda Diop di maire de la commune de la Patte d'Oie ñi ngi koy gërëm di ko sant bu baax di gërëm bu baax tey suñu jur yi fi teew muy suma waajur bu jigéen euh, suma waajur bu góor euh, tey teewul waaye suma waajur bu góor teew na muy saaboo ne mbay euh, mi ngi fi nekkoon ko parce que dafa voyagé Papa Ousmane Diouf ñi ngi nuyu ci ñi ma koy tàmbali mooy ñi nga xam ni mooy association FILS muy association bi nga xam ni la formation et l'insertion des leaders du Sénégal tey lépp lu may def ñoom dama leen di nuyu di leen gërëm parce que ni nga ko waxee rek man ndaw laa ndaw laa boo xam ni ñoom ñoo ma jàppale ñoom ñoom may gunge ñoo ma tete ba ma agsi fu may agsi association bi nag ñan la tey man mi maa ko jiite maay Cheikh Ahmadou Bamba Mboup di président bi waaye Cheikh Ahmadou Bamba bi mu ñëwee. bëgg taxawal lu mel nii dafa am ñoom ay gor yoo xam ni damaa ci waxtaan ak ñoom parce que deux mille 2011 laa ñëw Sénégal jóge bitim réew commencé organiser ay gala ci banlieue bi parce que tey lii pour nga def ko il faut nga mbapat ba pare mbapat boobu nag bi ma ko tàmbalee ci en mille 2011 ci laa ci nekk nekk ci nekk ci ba 2016 ci la ñu taxawal li nga xam ni moom mooy kuréel bi. di nuyu Ibrahima Ly mi nga xam ni mooy secrétaire général association FILS di responsable à Dalifort wax dëgg yàlla jotam mayewu ko waaye bi mu déggee li nga xam ni moom mooy mbébét bi dafa bàyyi léppam dama ma Cheikh Modou Bamba dinaa la ci gunge di nuyu bu baax suma papa Ibra mbay mi nga xam ni 2011 moo bëgg fàllu ak yow mi papa Ousmane ci ngeen ma commencé gunge tette ma lépp lu may def ngeen ma ci accompagner maa ngi leen di gërëm yéen ñett di leen boole nuyoo bi di nuyu bu baax suñu papa Mbaye Gueye yàlla na ko yàlla yëkkati parce que mooy suñu vice président amul lu ñu mës see def te ñëwul lépp lu ñuy def rek fu ne def fay ànd ak ñun parce que moom ku ne xam na ni c'est le premier tigre de Fass li mu def ci làmb ah du ma ni ñëpp def nañ ko de waaye def na lu ne ci làmb bi ñu ñëwee mu lu ñu attentivement dafa ni moom bu mënoon delluwaat ndaw def formation professionnelle dina ko def moo tax mu ne loo leen di def danaa ci ànd ak yéen tawaat moo tax ñëwul mais lépp lu ñuy def daf ñu ci gunge bu baax a baax du nuyu bu baax El Hadj jaar Diarra Thioune mi nga xam ni c'est l'agent de Tapha Tine El Hadj jaar a nekk suñu grand tout ce charge de chargé des relations moom moo ko géré man bi ma ñëwee commencé seeti lutteurs yi seeti naa leen ñoom ñëpp franchement sumay frère lañ waxtaan naa ak ñoom mais bi ma seeti jee Tapha dafa daf ma boole ak moom ma seeti ko waxtaan ak moom mu xool ma bëtu yërmande nee ma yow da nga jare jàppale boobu ba léegi fépp fu ñuy dem dafay ànd ak ñun ànd ak Tafa Tafa naroon na ñëw mais tey dafa am imprévu moo tax ñëwul kon Njaga Jaara ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu El Hadj Mbaye Niang suma frère gaynde bi nga xam ni franchement mooy président des cercles jeunes leaders des Parcelles Assainies nekk conseil technique ci association bi ñu ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam du nuyu suma frère Matar Diop père Ousmane li nga wax loolu moo am parce que tey formation bii lutteurs yi di def tey bu fekkoon ni da ngeen di dem di ko fayal seen bopp di ngeen fay 500 ba 600 mille suma frère Balla Diouf yàgg na ma ko wax téléphone franchement nee na ma Bamba associé ñun man ma ko def fay naa ci cinq 500 mille kon nag moom tey bu ñëwee partenaire technique yi ànd ak ñun jàppale ñu mu wàcce affaire bi ba ci suuf kon contribuer na kon nag ñu ngi sant bu baax a baax. du nuyu Balla Diouf mi nga xam ne tey moom it ku ñàkk iñaan la bi ñu tàmbalee mbir bi ba léegi mi ngi ñuy woo mi ngi ñuy félicité kon nag kooku ku ñàkk iñaan rek moo koy def di nuyu suma professeur monsieur Kambé mi nga xam ni bi ma nekkee sixième secondaire ba euh, lépp moo ma yor fii lay pédagogue tey lii tamit sàkk la ki nga xam ni moo moo def ci yow sport ba tey nga mën a taxawal lu mel nii ñu ngi koy nuyu di nuyu grand magum mbay mi nga xam ni moom it tamit euh, créé na écurie parcelle doon jàmbaar di ci taxaw am taxaw bu am solo tey bi mu ñëwee ndox yi yëpp moo ko jënd magom ñu ngi lay remercier bu baax di nuyu les champions ñu ngi leen di nuyu parce que yéen fu mérité yéen lu ne mérité ngeen ko tey euh, li suma papa Ousmane wax loolu moo am man immigré laa woon bu nekkoon bitim réew mais li tax formation professionnelle am solo ah formation professionnelle li tax mu am solo nit ki lépp lu mu def te amul formation professionnelle amul dara parce que dama naan tey nit ki jàng na am BFEM am bac am doctorat am yëpp c'est bon tey dafa am ay diplôme mais yéen il suffit tey ngeen def formation bii nii am seen attestation mais am ngeen li ngeen bëggoon yëpp am ngeen métier parce que man tey bi ma nekkee bitim réew bi ma demee pour def sécurité tubaab bi dañ ma ne il faut nga def formation ba pare boo defee formation doo mën a def liggéey parce que ki amul formation amul dara loolu noonu lañ ma tàggat moo tax ma gëm formation professionnelle ci laa ñëw Sénégal ba ñu mën a taxawal lu mel nii kon nag ñu ngi leen di encouragé ngeen jàpp bu baax di nuyu nag partenaire technique yi tey euh, ñi nga xam ne tey ñoo financé activité bi di waa 3FPT madame Abissé la directrice ñi ngi koy nuyu mais nag ki ci jàpp dëgg tey mooy Sidi Ba mi toog moom mooy responsable guichet financement individuel di nit ku baax parce que moom li boolewuñu mbokk daf ñu boole parce que tey suma nijaay Samsu Mbuub ak nijaayam bu Gassama tey suma nijaay jooju mook suma yaay bokk ndey ak baay nijaayam jooju ak yaayam ma bokk ndey ak baay dafa nekk lu yàgg loo xam ne nii tey mbokk da koo jiitu moom it mu gëm service gëm liggéeyam lépp luy développement Sénégal ak 3FPT ak formation professionnelle mi koy doxal kon nag na ngeen ko tàccu xam ne lii ngeen am tey moom mi moo ko def yaaw jaal ñu ngi lay nuyu jaajëf di nuyu partenaires yi nga xam ne tey yàlla def na signé nañu ñoom ay convention bay Sall maa ngi lay nuyu. Euh, chargé en com maa ngi lay nuyu bu baax a baax yow Omar euh, ñi ngi lay nuyu bu baax ak ñi fi teew ñëpp ku lim jum euh, di nuyu Pam Ndiaye suma suma suma goro ni ko Ibrahima li waxee léegi mooy suñu premier partenaire jàpp ci combat bi ci kàttanu yàlla ba lañu lañu la ñu am séenu yëpp ci accompagnement moo ci moom la jóge kon nag ñu ngi lay nuyu Pam Ndiaye bay Sall nuyu naa la jox naa la sa wàccuwaay di nuyu partenaires yi nga xam ni tey ñoom ñoo jàpp ci kombaa bi parce que tey ñun bi yàlla defee ñu jóge bitim réew euh, doon ndaw parce que tey dañ ne bu fekkee ni da ngaa juddoo Fass màggee euh, euh, parcelle nekk doomu Bawol làmb dafay nekk ci yow yàlla def dañ ne li sëñ Abdoulaye daan wax rek tukki jom la waaye ñibbisi si fulla la def nañu carrière u 10 def def nañ ko en Europe doon def sécurité garde corps rapproché mais man bi may ñibbisi maanaam sama gars yu bëri tellement sama liggéey euh, sama patron dafa ma bëggoon wallaahi yàlla rek moo tax may wax Fabien Duwelo dafa ma bëggoon trop ci comportement moo tax comportement am solo yar teggin sama yaay mii duma bàyyi ma wax lu du dëgg ñëw naa Sénégal mu continuer di ma woo franchement pour ma dellu si waat ma ne ko nag dafa jot tey ma ñëw sama réew jéem a xool nan laay jàppalee xale yi kon nag kooku gëm-gëm rek parce que mënoon naa dellu moo may fay mu continuer ci teral ñi ma war a teral mais ça fait 2011 ba 2021 10 ans maa ngi Sénégal boole lu ma neex ak lu ma nakari parce que dañ ne nit ki balaa ngay am li nga bëgg dara yombul muy ci yor ki nga xam ne moo gën ñëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jaayante ba am lu muy am. Serigne Touba bi ñu ma tuddee juróom-ñaari at la ko suñu borom téye ci la ko suñu borom teg ay nattu mu nangu ko ba am li mu am kon nag ku bëgg dara dangay def dara loolu noonu moo tax ma ñëw. tey jii nii di ñafe loolu di ñafe loolu ba daje gor yi ñu mën ma ci accompagner bi ma ñëwee ci laa ñibbi si Sénégal commencé tëgg ay activité activité bi ma njëkk a def maa ngi ko def euh, à yëmbal terrain Ndiaye Rose dëgg yàlla mu nekk comme gala de lutte làmb ju mag boo xam ne tëggoon naa ko fa pare ci loolu dem naa fii ci banlieue bi euh, euh, Kër Massar fu ne ñëw Parcelles Assainies dépensé ci mais ma dem ba xale yi ñoom ñëpp commencé ñëw suma kër mbër yi bi ñu ñëwee ñoom ñëpp ne ma ñu de grand ñu làmb ji la ñu am yenn saa dinañ toog ay at euh, euh, du ñu bëre te bu ñu bërewul tamit amuñu métier bëgg dimbali suñu waajur yàlla bu defee nga entraîné am doole yooyu yëpp bu fekkee ni amoo ku la encadré rek tey mën nga dugg ci leneen loo xam ni tey du la gënal ma leen nag fi ngeen laal foofu la ma leen sport dafa am solo baax na trop mais nit sport loisir la nit dafa war am métier ci laa jóg ma ne nag jóg na tey ñu jàppale leen ci laa seeti waa axlu làmb yëpp waxtaan ceeg ñoom dem seeti président Alioune mi nga xam ne temps yooyu moom lañu dékkoon CNG ma dem mu recevoir ñu mën ak waa FIS moom Thierno njàmbe ñoom ñëpp Manga Sitor bi ñu recevoir li tax reception boobu am solo parce que nit sax di nga ñëw ñu accueillir la nga am loo wax am keneen koo xam ni am point bu mu ci jël ne point bi ñu neexuñu mais bi ñu ñëwee ñoom ñëpp la seen yaram daw ñëpp CNG Ibrahima li mi ngi nii. ak Ibrahima Mbaye ak Bëgg Fall duñ ma wax bàyyi lu ñoom ñëpp ñu ne affaire bi dañ cee d'accord président Alioune mu ne moom moo ko bëggoon a def mais tey bu un jeune jógee bitim réew ñëw pour def ko moom amul lu dul saluer ko parce que foofu mooy bunt bi kon il fallait ñu jaar fa bi ma paree ci loolu mënuma waxtu duma ko tudd muy suma sëriñ Cheikh Abdou Karim Mbacké moom seen Fallou parce que moom it daf ñoo defal teranga ñaan ci mbir mi bi ñu paree dañoo àndoon ak suñu frère Sidi Sam directeur général maa ngi koy nuyu de passage moom moo ñu njëkk gunge fële di CICES keroog 1300 places yëpp lañ feesal wax dëgg yàlla ñu def fan mbir mu am solo bi ñuy seeti jee sëñ Abdou Karim waxtaan ceeg moom dafa ne ah moom lii de dafa neex bi mu jógee sax ci doomam taalibeem mu am xalaat bi nga jóge bitim réew ñëw Sénégal promoteur yëpp ñu ngi fi ñëw samay xarit lañu waaye nga ñëw li nga bëgg a def ni yow suñu borom ci boppam ngay liggéeyam da ngay jaamu yàlla parce que tey li nga bëgg a def tey jii nii. Euh, lii mooy jàppale nit ki jàngal nit ni ñuy nappee moo gën di ko may jën kon nag na jàpp ni yàlla ngay njëkk jàppale man de am nga ci suma ndigal jàppal ni moom baatin ñaanal nañ la ci kooku moom am na waaye nag sama papa Ousmane muy wax ko lu reetaan lu ne ko nag Mbàkke ñaanal ñu si saayir si mu ne ko foofu laa jëm keroog moo jëkk jël alalam def ci mbir mi ne ku ci def rek day dem kanam kon nag ñi ciy def nañu rafet njott ni sëñ Fàllu doomam bu ci bu waxee loolu rek war na ko mën a barkeel di gërëm suma maam El Hadj Ibrahima Mbub mi nga xam ni moom it jugul ci ñaan mooy imaam ratib bu Rufisque kooku tamit ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax di gërëm tey ki nga xam ni bu ñu fa jógee ministre Dame Diop ministre de la formation professionnelle de l' emploi de l' insertion et de l' ñu ngi koy gërëm parce que daam euh, daf ñu recevoir bi mu ñu recevoir ñu waxtaan ak moom man ak association FIS ma wax ko projet bi Euh, yéem mooy la fait rek jóge bitim réew bàyyi ko ñibbi si Sénégal moom nee na loolu moo ko njëkk moo ko njëkk kontaanloo loo nee na ñaareel bi jour jeudi la ñu recevoir wallahi mu ne démb ci mercredi bi conseil des ministres dama président di bamtuwaat pour quatorze région Sénégal yi fu jeune nekk tey nañ ko jéem a former tey man su ma ñëwee en tant que jeune am xalaat bii bëgg forme les lutteurs Sénégal te mu ne ma mille lutte mu nekk milieu bi gën a sensible ci jeunesse bi mu ne ma la lutte nga bëgg ma ci dimbali te ma waroon man ak sama direction yëpp wër ci écurie yi parce que suñu liggéey la ñoo waroon wër ci écurie yi président écurie yi xool nan la ñuy recruter mbër yi pour former leen yow nga ñëw am bébët bi am xalaat bi kon ñun mënuñu lu dul accompagner la comme que da nga bëgg def tournée national man maa lay njëkk invité sama région c'était le 14 décembre 2019 bi mu ko defee wax dëgg yàlla jël koom-koom jàppale fils ne dañoo bëgg def forum ak gala de lutte keroog ba mu fay ñëw ànd ak ay directeur lu mel ni directeur de l'ANAM moom mi ngi fa woon ak directeur de l'emploi ak ONFP ñoom ñëpp mu ne leen damaa bëgg tey bés bu ma yor la lépp loo leen jàppoon bàyyi leen ko ngeen ñëw Jurbel bi mu ñëwee affaire bi ñor ko keroog ci stade bi la jël micro félicité association fils ci li nga xam ni mbébét nañ ko ba pare am seen récépissé jox instruction mbooloo mi direction am ne leen dañoo bëgg ngeen signé ak ñi convention wala demee Dakar fu mbër nekk Sénégal na ngeen fexe ngeen ñi ñu ñi war a financé financé ñi war a formé formé kon nag kooku moom it ñu ngi koy sant ndax lu bon bon def na liggéeyam kon nag ñu ngi koy gërëm ministre Dame Diop di ñëw ci direction am yi ñi nga xam ne signé ñoo moom ay convention di ko jiital ci nga xam ne kii la ki ñu njëkk signal muy docteur Souleymane Soumaré mi nga xam ni tey mooy directeur office nationale formation professionnelle signé nañu moom convention tey jii formel nañu 40 lutteurs 20 à Dakar 20 à Guédiawaye ba pare jëloon ñu ñetti lutteurs tey Tidiane fay ku ne xam na ni c'est le professeur de l'ANSAR tey jii nii euh, fa lay mi ngi fay liggéey tey fonctionnaire u état la jëloon nañu aussi Amandaw tey mi ngi fay liggéey ak caatu yaraax ñoom ñëpp ñëw nañu ñu ngi fiy toog yaawu jaal ci formation boobu la bokkoon mi ngi fiy toog kon kooku tamit cant gërëm yàlla na ko ñu ngi koy sant bu baax di gërëm aussi suñu euh, frère Pape Modou Fall di directeur de l' emploi moom it liggéey la ñu xam ci moom ak gëm-gëm moom it actuellement daf ma ni Bamba pare nañu fépp foo xam ne rek tey mbër ne fa tey ñu formé ko ñun tey ñu ngi jéem xool nan lañ koy jàppalee ba insérer ko mu am emploi kon moom it signé nañu moom convention di nuyu euh, Maodo Malick Mbaye mi nga xam ne le directeur des opérations ci association bi la bokk Amadou moo ñu yombal ba ñu am fii tey moom it moo ñu njëkk formel 31 lutteurs en sérigraphie ñu ngi koy sant bu baax di ko nuyu moom it signé nañu ak moom convention tey docteur Macoumba Diouf tamit directeur de l'horticulture noonu la ko bëgg si signé ak ñun pour un lutteur un producteur mën a am yaatu tey nag euh, ñu fi teew di 3FPT tey ku ne xam na ni fonds de financement de la formation professionnelle et technique ñoom la tey Sidi Ba mi moom it wax dëgg yàlla yéeneem mooy li président bëgg parce que ku ne xam na ni guddi yi ñu toll nii jamono yi passé dëkk bi metti woon na lool président de la république génn télé lancé message ne li metti jeunesse bi daf ko bëgg saafara kon kooku actuellement bëgg na saafara mbir yi ñun nag daf ñu si fekk si parce que deux mille 2011 ñu nekk ci làmb ji mille 2016 ñu def forum ba mille 2021 am nga loolu loolu 10 ans la kon kooku boobu bañ cay dem di ci dem ak suñu moyen bopp yàgg na. kon nag Sidi yow suma frère mi nga xam ni tey sa directrice gis nañu lu rafet li muy liggéey Sénégal muy trois fpt ñu ngi lay euh, euh, euh, tàllalaat loxo ci nga mën a nga jottali directrice de la de la la 3FPT tey mbëri li ma ciy woo téléphone ñi bëgg def formation actuellement bëri na te nous avons quelqu'un boo xam ni ci côté garde formation garde corps rapproché Matar Diop képp koo xam ne rek tey yaay garde ministre tey moom moo la formé kon nag kooku du cuune kon nag tey na ngeen jàpp ni yéen vous êtes des professionnels vous n'êtes pas des nervis tey ay professionnels ngeen looloo tax formation baax parce que tey ku génn nee leen dóor leen di doo leen ko dóor ku leen di ne saaga leen ni doo leen ko saaga kii daf ko def ci yéen comportement communication ni ngeen di doxalee ni ngeen di ànd ak seen VIP loolu moo tax formation baax mais ki ñu formé du dóore benn mbër dóoru fi kenn yéen vous êtes des professionnels kon nag 3FPT Sidi Ba boo gisee mu ñëw caaxaan indiwu ko fi dafa ñëw mu jéem a seet nan la ñuy signer convention ñoom ak nan la ñuy accompagner ba li leen président sant muy 14 régions yëpp ñu mën fa dem ku ci nekk formation ba nga bëgg muy sérigraphie di di di di garde corps rapproché di yeneen ak yeneen ak yeneen nga mën cee bokk comprendre kon nag loolu noonu na ngeen ci dalal seen xel ki signer convention ak kuréel yu mel nii signer ko direction de l'emploi kooku pare na. pour wër 14 régions yëpp di lancer message le président de la république Macky parce que tey moom la suñu borom dénk réew mi ñu ngi koy lancer message président Macky ñun association FILS ñu ngi lay lancer message parce que li ñu tax a jóg mooy liggéey ñu ngi koy def ci suuf te yàlla rek tax mais nag nit ki buy def dara tamit bëgg na ku ko gën a dooleel parce que tey dëgg la les partenaires techniques sont là ñu ngi financer les lutteurs dëgg la les partenaires technique sont là tey ñu ngi ñuy accompagner mais il nous faut des moyens de déplacement parce que yéene gi ñu am mooy ñun dañu bëgg liggéey tey xaalis bi nga xam ni tey ñun moom lañ bëgg mooy dañoo bëgg a démontrer actuellement suñu di démontrer ni ñun Sénégal lañ am yi ñu xale yi ñoo ñu ñor ñu ngi lay ñaan nga gën a dooleel association bi ñu ngi lay ñaan xale yi tamit ñoom ñëpp bëgg nañu ñu am emploi parce que ku ci am emploi tey sa waajur nga ko jëmale ak sa bopp parce que la jeunesse c'est l'avenir d'un pays kon nag président Macky Sall association FILS lii jiitu na ko li nga woote nii kon nag ñu ngi lay lancer message ci kanamu presse bi nii ñun li ñu tax a jóg mooy 14 régions Sénégal yépp la ñu bëgg wër tey bëgg nañu nga dooleel trois fpt dooleel sa direction yi yor wàllu formation professionnelle yépp ba ñu mën ñoo dooleel loolu noonu tey moo nekkoon kàddu yi nga xam ne nii moom lañ fi bëggoon yëkkati di gërëm ñëpp nag wax yombul lépp loo xam ni wax nañ ko juum ci ñi ngi ciy jéggalu bu baax a baax suñu président d'honneur aussi woo na ma Babacar Gueye Diop mi nga xam ni c'était le directeur financier des postes du Sénégal nee ma mi ngi ci yoon moom waa Tëngëj la xaritu Papa Sidi Ba bii la nee na mi ngi ci yoon di ñëw kon nag gars yi euh, ñu ngi leen di sant di gërëm presse bi di gërëm yéen ñi fi teew ñëpp di ñaan yàlla lii buñ ci jógee yàlla na ci yeneen formation yu am doole topp buñ ci jógee yéen ñëpp man ni ñu leen yéene ñun fils yéen ñëpp yàlla ngeen am emploi parce que yéen ñëpp ay borom jom ngeen li leen taxa jóg mooy dimbali seen ay wajur dimbali seen bopp parce que jeune bi moo war a takk jabar moo war a njaboot moo war a teral ndeyam moo war a teral baayam kon nag yàlla mi yar mi dara tawul yàlla nañ ci yàlla jàppale may ñu ko du fan ak wér ñu ñëpp yàlla accompagne ñu ba li ñu bëgg def yëpp ñu def ko Père Ousmane ñu ngi lay nuyu bu baax yow moom affaire yi yàgg na yaa ngi ciy jàpp di ci taxaw kon ñu ngi lay gërëm di gërëm ñëpp jërëjëf yi